jërë ngeen jëf mbokk internet yi ginnaaw bu ñu leen nuyoo dalalaat leen ak jàmm ci seen ay actualité du jour des koy door nag fii ci diwaanu Ceeskaay ak kii di MM Diallo moom ci ak fàttali nag fan yële ca ginnaaw moom rek lañu tuumaaloon ni dafa faat waajuram bu góor ay atam walla yemook 70 ans daf ko fekkoon nag ci guddi gi moom mu nekk ca diggi kër ga toog ci ab pliandam di nelaw ci naka noonee la jëlee paaka daal di koy rendi laata moo daw ay xibaar ni moom xelam neexul itam daal dinañ koy faral di jàpp lu bëree bari eh, ci ay stupéfiant lu muy jëfandikoo lu ci mel ni drogue ak lu ci ajo eh, boobu ba tey nag eh, ñu ngi ko doon wër moom MM jàlloo fi mu ne nii daal dinañ koy rek teg loxo yëf yi mi ngi xewee woon foofee ca Mbour de 17 jàpp 18 juillet bi ñu génn fi mu ne nii nag ni ki démb la daal di koy rek policier yu commissariat central bu cees teg ko loxo moom ñu ngi ko fekk foofee nga xamante ni mooy ca diwaanu sorti Thiès ba ci bile suuf su foofu lañ ko daal di rek jàppee jamono ji sax mu ngi en garde à ñu koy toppee nag lii di meurtre foofee la ca commissariat central bu Thiès foofe la nekk. te lañ ci waxoon ci njëlbeen ga rek moom la ñu waxaat ni moom MM Diallo moomee nag àndul ak xelam yépp kii di Lobé Ndiaye doon nañ leen indil ay xibaaram ni ki démb mu nekk soxna soosee nag ay atam toolu ci 30 ans ñu fekk ko ñu faat ko foofee ca diwaanu sorti péage ba ca jam Diamniadio jamono ji nag lu bees am na ci ab enquête am jëmale ci faatam moom Lobé Ndiaye moomee nag jaaykatu pièce détachée la woon doon am magasin sax foofee ca diwaanu Rufisque ginnaaw nag bi ñu ko woowee téléphone wax ko am na conteneur bu bees bu ñëw ci ay pièces détachées bam ca demee ci la ko ay mbokkam mujjee gis bañ ko gisaatee nag ab néewam la ñu gis moom Lobe njaay ginnaaw ba ñu defee autopsie ba nag lam xamle moo di euh, moom Lobe njaay dafa jot ay coups yu baree bari ci bopp bi euh, maanaam daal ay objet moom lañ ko dóor lu baree bari ci bopp bi ba mu ñàkk ci euh, bakkenam fi mu ne nii nag sax police jot naa dégg ki nga xamante ni moom la mujjee waxal téléphone moom Lobe moomee jëmale ci wàllub enquête bi fi mu ne nii nag ak njabootam gannaaw bañ ko séedeelee ay séede yu rafet wax ni jigéen ju mën góor la it itam jàmbaar la woon lenn rek la ñu bëgg mooy jamono ji ñu teg loxo ci ki def wala ñi def jëf ju ñaaw jooje seen doom ji di lobe Ndiaye moom Lobé moomee nag ni ki dem bu jébbal nañ ko boromam foofee ca sëg ya nekk ca Touba Mbacké kii di Landing Mandiaye sekk moom daal dinay génn seetal boppam ñu gën ko xam ci turu kilifa mu nekk rappeur nekk activiste itam Eh, di yëngu ci mouvement boobee ñu duppee Y'en moom nag gannaaw ab vidéo eh, bu ñu fësal ñu ci gis rek eh, mu nekk ceek benn nit cib oto mu koy jox xaalis bu baree bari jëmale ci mbirum visa moom lañ ko tuumaal ni daf koy trafiqué moom kilifa daal dinay génn nag ni ki dem def conférence de presse am jàkkaarloog askanuk Sénégal raxas deram ba mu set nee na nag loolee du lenn lu dul ab complot bu ñu bëgg a nas teg ko ci kawam te moom nee na du ko nangu benn yoon nag la mu xamle donte xaalis boobu moom daal dina koy rek encaissé waaye nee na lu jëm ci wàllub oto la boo xamante ni rek daf ko doon jaay waa ji waral transaction boobee dox seenu diggante mi ngi xam sax nag ba tey ni waajoojee doon ko filmer ci biir oto bi ab xaritam la daanaka ñoo màggandoo lu yàgg yàgg moom kilifa daal dinay fësal sax ab benn pa këyit ngir rek firndeel ni loolee ab transaction la bu jëmoon ci wàllum jaayum oto bañ ko laajee nag kon lan moo tax ñu tudd fi mbirum visa ak traficu visa tam boobee daf ko proposé woon ni ko mën na koo dimbali ndax dafa bëggoon génne doomam mu dem bitim réew te passeport diplomatique loolu la soxla woon waral na nag mu yoroon ab téléphone am di ci seet ci ay contagam kenn ku ko mën a jox numéro consul bi su ko defee mu utal ko rendez-vous euh, officiel moom kilifa nag nee na ngir firndeel li muy wax jamono ji euh, fas yéenew la sax génn réew mi di Sénégal itam nee na nag jox na boppam justice heure buñ ko soxlaa nañ ko woo nee na sax procureur de la République na auto saisiru ci affaire bi rax si dool yi mouvement yi mu doon def ci biir yaanamar nee na daf koy rek ajandi euh, ba keroog yoon di seetal deram ci li ñu koy tuumaal moom kilifa nag la mujjee wax moo di euh, lii nii nga xamante ni mooy complot bi ñu teg ci kawam bu fekkente ne rek euh, luy divertir sénégalais moo ko tax a jug bu yaboo ña ko nas ñu dem toog yi nee na itam lii di troisième mandat moom daf ko fas yéene xeex ba fa mu yam mu neex bakkenam sax la ci teg moom mii di kilifa loolu la xam xamle gannaaw ab plainte bi ñii di waa Jamra dóor leen série bi di infidel lii di Sénéra daf ko censuré jamono ji muy seen boobee actrice bi di Léna Gueye daal di joué nekk ci nag ak góor ci benn bureau daal di ci rek summeeku ba set di wane sax ay njiit laayam internet yu bari daal di koy woon ñaawlu waral Jamra daal di ciy jugoon xaar ci tànk tubéyam ngir xeex ko jamono ji nag am na ndam ndax euh, sénéra fi mu ne nii dafa censuré série boobe di infidel euh, maanaam rek télévision sénégalaise yi dañ leen a interdire ñu teg ko euh, moom Mame Makhtar Gueye ginnaaw bi dogal bi daanu mbégte bu rëy rëy la ci am mi ngi xamle nag ci ay kàddu ni il faut que rek loi bi di def lu ne mel nii di jug ci dal ci kaw ñi nga xamante ne rek ñoom ñoo bëgg a yàq suñu ay valeur fii ci suñu réew Sénégal rax nag lii di industrie cinématographique bi ak audiovisuel bi il faut rek ñu raxasaat ko ba mu set su ko defee lii dina servir de leçon ñeneen ñi nga xamante ni rek dañoo bëgg a ngir def lu mel nii lii di baccalauréat général 2021 euh, ni ki démb nag lañ ko door waaye li ñu ci nemmeeku mooy ay fraude ak i tricherie yu bëree bëri ginnaaw démb bi ñu ko dooree foofee ca Kaolack centre Notre Dame ba ñu fa jàppee kii di Akare muy nekk di tricher euh, fële ca diwaanu Pekes moom euh, lii di épreuve corrigée yi moom moo doon circuler ci benn groupe WhatsApp ñu koy wax team Pekes boobule groupe nag lu toll ci ñaar fukki rek euh, membre ñu ngi ci biir euh, cinq candidats libres nag jamono ji tee nañ leen teg leen euh, garde à vue gendarmerie moom mooy mëne boobule enquête mi ngi rek woy di xool source bi fan la jógee maanaam anakan moo jël épreuve yooyu ñu corrigé daal di koy tas ci groupe ba naka noonu lycée Limamou Laye itam ñaari candidat yi doon def bac dañ leen suspendre la ko waral foofee ca lycée Seydina Limamou Laye nekk ca Géejawaay dañ leen a bett ñoom ñu ay téléphone portable dire ci biir centre d'examen yi ñoom ñaari candidat yooyu nag bu ñu moyul sax duñu yem rek ci suspension waaye yeneen daan dina dal ci seen kaw foofee ca diwaanu Louga nag ak jayo ju rëy moo fa am benn waajur moo doon rek dóor doomam di ko corriger ba mujj cee ñàkk bakkenam moom moomee nag ay atam mi ngi toll ci fukk ak juróom ñu koy wax góor Diouf yëf yi mi ngi xewee nit ki altine bi ñu génn foofee ca village bu Gabar nekk ca département bu Louga moom euh, góor juuf nag kii di wajuram bu góor di papam euh, dafa yoroon benn cable muy fil yu ñuy utiliser di ko ko dóor ndax rek euh, lu mu defoon ginnaaw nag bi mu ko dóoree ba mu sonn ak fiilu cable boobu mu yoroon moom rek xale bi gannaaw yaram bi dafa takkoon suuf ndax ci suuf la doon bërëngu dafa jël soowam dem ci douche ba ngir rek sangu ji waaye dafa dugg rek laata moo commencé sax di xëppoo femme dégg benn bruit bu jóge ci toilette yi naka noonee nag la daw dem xooli bruit bi lu mu doon ci la fekk doomam joojee di góor juuf mu dee daanu tëdd ci suuf ni laajte Euh, mu jéem ko réanimé ba sonn waaye moom góor foofu la mujjee ñàkkee bakkanam euh, ñu daal di daw gaaw yóbbu ko ci poste de santé bi ñu confirmer leen ni moom ñàkk na bakkanam euh, papam nag bi ñu yëgee boobule xibaar dañu ko rek daal di jàpp teg ko en garde à vue moom mi nga xamante ni moom mooy góor ju fi mu ne nii nag ab néewam dañ koy yóbbu ci morgue bu hôpital régional Ahmadou Sakhir mbay bu luga enquête bi jamono ji mi ngi woy kenn bouclé gu ko ndax fi ne nii defaguñ ko autopsie papam nag moom mi ngi ci loxol yoon jamono ji Euh, kii di Mouhamadou Bamba Dione moom ki démb lañ ko doon jugé foofee ca tribunal de flagrants délits bu Dakar lañ koy toppee bokk na ci acte contre nature euh, proxénétisme ak diffusion d'image contraire au bonnes mœurs moom Mouhamadou Bamba Dione nag dañu koy tuumaal ni boroom ñaari turi la euh, la ko waral kii di soxnaam Khadija heure bu génnaan kër gi voyagé rek wala mu sori kër ga tuuti moom Mouhamadou Bamba Dione dafa daan indi kii ñuy wax aada ñuy wax ni ñoom ñaar nag dañoo sekk relation amoureuse maanaam dañuy génn

la koy gën a firndeel sax lii di téléphone portable am moom Mouhamadou Bamba Dione ba ñu ko fuyee dañu cee gis ay échange digganteem ak kii di Adama Moome ak xalifa Signaté dañu ciy faral di sekk ay xeetu waxtaan yu doy waar moom liñ koy tuumaal yemul ci loolu dafa am beneen néeg boo xam ne rek daf ko doon luye ay jigéen yu doon jaay seen bopp ginnaaw bu ñu encaissé ba pare nag luñ ci am ñu daal di koy partagé ak moom ci néeg yooyu sax bañ fa defee perquisition fekk nañ fa ñetti carte ay jigéen di témoigner daal dinañuy nangu rek itam euh, foofe dañ fa daan dalal seen i client def fa lañ fay def su ko defee rek euh, luñ ca am ci li ñu encaissé ñu daal di ciy jox commission kii di Mouhamadou Bamba Dione moom nag nangu na liñ koy tuumaal ni daf doon sekk ak aadama euh, moomee relation amoureuse waaye jëm ci néeg bi ñu ko jiiñ ni daf ko doon luyee rek ñuy jaay seen bopp nee na daf leen ko doon àll rek waaye ñoom ñoo fa jël di fa indi seeni ay client fas yéene nañ ko nag jugé ni ki 5 août bi ñu dëgmal étudiants ya fare ca daara ju kawe ja di université Cheikh Anta Diop ñoom ab grève de faim la ñu entamé yooyu la étudiant nag mooy ñi nga xamante ni conseil de discipline bi gannaaw bu mu génnee dafa tegoon ay daan seen kaw daal leen di dàkk rek foofee ca bërëb bu jàngukaay ba ñoom nee nañ nag euh, dañoo rek juum ci boobu boobule décision ndax defuñu dara euh, waral ñu ni woon dañuy rek euh, del dem def justice seen bopp ba keroog lu ñu am jël ci def justice boobee nag grève de la faim lañu ko dooree waaye fi mu ne nii rek ginnaaw 16 yu ñu grève gis nañ ci ñaari xale yu jigéen yoo xam ni dañu leen a mujjee évacuer hôpital ndax rek dañoo amoon ay malaise kii di Pape Abdoulaye Touré nag bokk ci seen biir sax moom mooy xam xamle yooyu leen xibaar xamle na ni sax ni ki dem foofe ca kanamu rectorat ba fa la ñu fanaan laataa rek ñaari xale yu jigéen yooyee ñu évacué leen ca service médical ba nga am malaise bu ñu def ñoom nag bokk na ci li ñuy revendiquer ñu daal di leen ni dugalaat immédiatement ca biir université ba itam ñu daal di yëkkati rek session unique bi nga xamante ni moom la ñu décrété foofee ca faculté des sciences juridiques et politiques lu ko may nag nee na ñoom lépp lu lañ mënti dal rek nañu jàpp ni kii di Ahmadou Ali nekk recteur université ba ak doyen faculté sciences juridiques et politiques ñoom ñoo leen ko yóbbee mbokk internet yi fi la ñu yew ak yéen ci seen ay actualité du jour jox leen dig daje beneen yoon ci yeneen i xibaar jërë ngeen jëf